bateau yi ñuy wax bateau chinois man dama dul bëgg sax di wax bateau chinois parce que en réalité du bateau chinois ne ku ci nekk am na tubaab boo xam ne dafa nekk sa gannaaw am na boo xam ne dafa nekk sa gannaaw yéen ñaar yéen a bokk ci liggéey moom moo tax nga mën a am li nga am. Amen. Amen. ñoo tax ñuy yëkkati ñaari carton benn carton ba ñu ñuy jox ay camion dañuy jox ay conteneur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 bi ñëw si topp euh, ñëw dal si Sénégal doog mel ne Sénégal ñu gis capacité ak compétence su Sénégalais yi ñu ni fii kat dëkk bu ñu war a woon liggéeyee la parce que jaar nañ si li ko waa ji waxee jaar nañ si ay dëkk mais bi ñëw ba tomb si Sénégal xam nañ Sénégal yi ils sont compétents loolu tax dem ñëw ne ak ñoom ay partenariat partenariat bi Sénégal yi gis nañ seen bopp bu baax a baax plus que yeneen dëkk yi nga xam ni la majorité des bateaux la plupart des bato nappe wuñu Sénégal ñoo ngi nappee dans les pays de la sous-région mais Sénégal la ñuy départir parce que Sénégal moo am les compétences et la logistique nécessaire pour une telle opération ñoom Sénégal la des Sénégalais bon tey ñoo dem négocier andi ay gaal. doomu sénégalais yi di ci ñëw di si jëriñ seen i askan ni ko ñeneen defe ñoo ña ko def di gay pêche seen i ginnaaw ay tubaab ñoo nekk seen i ginnaaw koo ci gis ci ñoom ay tubaab moo nekk seen i ginnaaw kon nag tey jii sénégalais yi jóg dem uti ay gaal négocier ay bateau ñëw réew mi di ci gis seen bopp marin di ci dem géej di ñëw vraiment dama xamul au lan moo fi jar xeex yaa ngi nii personnel bi nekk à terre presque soixante dix personnes la ñuy utiliser à terre bokkul li nga xam ne moom la ñuy utiliser en xam nga dafa am benn affaire boo xam ne dafa am ñun dañoo yàgg ci biir port parce que ñun ay anciens travailleurs Africa Mer lañu Africa Mer mu ngi tëj depuis 2004 depuis 2004 ba 2014 ñu ngi ci biir port bi.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 sur sur le bateau à bord et su ci la ku ci wàcc boo ku ci wàcc di nga am loo yóbbu sa xam nga ne am na loo xam ne vraiment nañu dimbali nañu dimbali ngir Yàlla ak Yonent bi fii fii képp koo xam ne dafa nekk ci wàllu jën li nga commencé na ko Sénégal yëpp xam ci benn carton ñaari carton camion dem di secteur bu am li nga xam ne mu ngay nekk ba ngay nekk maanaam euh, koo xam ne borom borom ngay doon wala nga nekk koo xam ne wala da nga am ay bateau. li ñuy embauché nii rek damay commencé si dockers yi docker ñun chaque mois daañu embauché dix mille huit cent docker si gars yi débarqué Sénégal yëpp autant que yi am licence Sénégal tuuti lañu ak yi nga xam ne pavillon étranger am débarqué Sénégal weer wu nekk daañu employé dix mille huit cent docker par mois en plus euh, embauchement bi ñaata emploi la ñu créé ñun ñu ak suñu ñetti euh, euh, société yi nga xam ñooy liggéey on a embauché deux mille quatre cent et quelques mun ngeen ko xoolaat mun ngeen wër port bi di gis ñoom ñi ngi si seen i activité boo leen pare mun ngeen dem si ñeneen ñiy coow di wax lan ñoom lan lañ ban apport la ñu indi si marin sénégalais ban apport la ñu andi ci docker sénégalais loolu docker yi dinañ ma gën a kii habilité pour wax si loolu mais li ma bëgg a xam daal mooy këriñ nañ bàyyi nit ñi ñu liggéey ku fi andi gaal dans les normes sénégalais nga ba ñu bàyyi ko mu liggéey parce que loolu aussi man xaw ma ci gisuma ci inconvénient Sénégal yi mi ci gis boppam marin mi ngi gis boppam docker mi ngi gis boppam manutentionnaire mi ngi gis boppam ñeneen ñi ngi ciy gis seen bopp xaw ma daal vraiment lu li a employé ñi fi nekk mais nañu wax nga xam ne moo nekk moom la nit ñi di vivre sur le terrain dafa bokkul lii mooy li nga xam ne moom la nit ñi di vivre sur le terrain dina banque kenn du ko jeex wax jaa ngi nii on a créé des cadres au niveau des bateaux parce que on embarque des sous-officiers des seconds officiers qui sont des comme les, les commandants sénégalais qui, comme, qui commandent les autres bateaux sénégalais, les armements sénégalais, nous serons, on gagne presque plus que ces, que ces gens-là. On a imposé pour l'embauche des, des boscos et des classificateurs. Ils, gagnent, ils ont un salaire très substantiel. Des jeunes, des jeunes entrepreneurs qui sont nouvellement dans le métier, faire des mais ñi fi am vingt ans 40 ans de métier defuñu ko fi foog am naa jeunes yoo xam dañ ne sama créé fi dem defarlu ay deux bateaux des bateaux neuf au niveau de la Chine directement sénégalisé à partir de la Chine donc sénégalisation bi ñu wax du sénégalisation de de façade sénégalisation réelle réelle réelle comme ni ko suñu loi tëralee duñu ay clando duñu ay daro nous sommes des sociétés de droit sénégalais kenn dematul bar barça sax kenn déggatu ko. parce que Corse ku jóge seen village ñu jóge seen village ñëpp ñëw fii dañuy am ils espèrent trouver un emploi auprès des auprès des bateaux loolu ñoo ngi si sant yàlla bu baax ah, ñooñu di wax ñooñu di di jéem a fustiger les bateaux nañ jéem entreprise ay industries yoo xam ni daañu mën satisfaire la demande loolu lañ leen di ñaan